asalaamaaleykum mbokki internet yi safo setaan Click Dakar 221 kon nag tey yaakaar naa dañu seet si koo xam ne ku xam na ko duñ ko présenté àdduna bitim réew muy Serigne Bassirou Diop borom jaaro bi Serigne Bassirou borom jaaro bi nag xam na ko ci àdduna macha muy faj jaa aajo jaamu yàlla yi macha tey fi nga xam ne tey moo di uh, diwaanam waaye itam war a waxtaane ci li xam ne moo di xam-xam war a xam a waxtaane uh, na ne instant Euh, dëkk bi euh, politiciens yi ku nekk dafa bëgg a nekk euh, candidat waaye itam sëñ Bassirou Diop ku nekk xam na yàlla da koo may ku nekk xam na kan mooy maamam macha allah maamam def na lu nekk ci maanaam ëttu Serigne Touba tey nag macha allah ñu fekk fi nga xam ne moo di Jurbel waxtaana a waxtaan ak moom ci lu bare bëri ci xam-xam ak li nga xam ne moo di aju jaamu yàlla yi Serigne Bassirou ziar nañ la. bisimilah alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax ñu sant suñu ñaari mm-hmm. sant suñu yaakaar Sëñ Maodo Mountakha mm-hmm. jàll si yaakaar Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu mhm. jërëjëf bismillah mhm. macha allah Serigne Bassirou tey ñu fekk la fii macha allah ku nekk xam na ne nitu yàlla nga am na yàlla may ci kurus am na yàlla may ci ñaan dimbala joomu adama ngay faj ay aajo yu baree bari nag euh, nga doon ne ko sama maam waaye itam nga jàngiwaat xam-xam ku nekk xam na ne Jurbel kër Serigne bay Sarr ah borom xam-xam fa la génne nga génne fa tam kii dee sa tey ku nekk xam na ko ci ëttu Serigne Touba muy ku am xam-xam muy Serigne Mouhamadou Diop Mouhamed Lamine Diop Dagana waaw bu Dagana tey ñu fekk la fii tey tey sëñ euh, ñu gis ne seet macha allah yàlla la cee may waaye ba ñu dugg ci bagage yi dëgg-dëgg gis nañ table bi ci nekk ñu dugg ci wàllum seet ba pare parce que nit ki ubbeeku sa ubbeeku mooy seet lan mooy rôle seet dëgg-dëgg alhamdulilah idaali mhm. ñun suñu lépp seet la mhm. ndax seet la mooy li nga xam ne moo gën a wér ci lépp lu ma doon mhm. damay gis rek dañ laa wax ak lu ma doon doomu aadama ji bu ñëwee ci yow danga ko war a seet li saxaar ay mbiram xam li ne ci moom doo jëflante moom ci mbirum ñaan yàlla képp ku la dàq seet idaale moo la dàq ñaan hmm? lépp seet képp koo xam ne damay dama lay damay jëflante yow laal dara wala balaa ma jox génn saafara koy jëfandikoo idaale hmm. damay dama lay seetal macha xam li ci yow xam sa tabiya xam sa buruj bu hmm? defee ma doogee nga doogee xam fu jàngaroon ne nga def fa jubal yoon bi ngay jaar nga xam yoon bi yoon bi ngay jaar saafara soo ko mën a jox ak lu doon du jariñ du sango yoon mu jaar man moom sama lépp seet la képp koo ñaan yàlla mhm. balaa ma laa defal dara dama allah am na parce que yaakaar na docteur da koy wax nit ki boo ñëwee mu feebar bala nga ko bi pour faj ko waaw loolu mooy wàllum seet waaw loolu mooy loolu loolu la jaadu nit ki balaa jëflante moom dara mhm. wala balaa nga ko jox génn saafara mhm. idale da nga ko ba noppi macha allah ndax doomu aadama da saafara masalan nga jox tey nga jox mbind mbind ma jëm ak moom aajoom bokkul subaa daf koy gën a lor allahu akbar su fekkee nag xamoo maanaam cawatam lan la mhm. mën nga saafara soo xam ne da jafe-jafe yoo xam ne yeneen gàllankoor bari sëriñ si maa koy lancé képp koo mhm. seet seet mooy ëpp a seet rek da nga xam fan mhm. la ci réew mi man maay ki xam ne maa seet ndax wóor na man seet gi ma yor xamuñ ko sax boo seet gis nga bi ma yor yi daal ah, béjjën bi sa béjjën bi ma yor bi képp koo xam ne ñëw na ci man jox ma turam ak turu waajuram bu jigéen ci kàttanu lépp lu ma xam ci moom i daal dama koy xam muy béjjën bi ak pétard béjjën bi jigéen lépp lu ma bëgg xam ci moom i daal dama koy xam allah akbar na ñëpp dem dañ jàng seet ndax nit ki ko ñaanal mu noppi te mu te mu seet xale nga mais xam-xam xam-xam xam xale moom taxuta am xam-xam xam moom dañ koy jàng rek suñu borom doyoon na fépp fu doomi soxna dem wala fépp fu ab di dem dafa jàng xam-xam suñ borom defa dem nañ fu baree bari ba gëstu xam-xam te wóoruma ne xam-xam bi ñu yor moom xale yi xamuñ hmm? ah, du xam-xam gone macha allah képp képp koo xamee nag bëgg ngay ñaan demal jàngi seet loolu laay lancé ñëpp macha allah loolu laay lancé ñëpp am na solo numéro baa ngi noonu ci daw ci par d'écran bi képp ko xam ne foo mën di nekk rek boo amee jafe-jafe àdduna soo ko woowee bu la xoolalee buntu seetal la yaakaar na sa jafe-jafe dina jeex parce que man mii Idali yàgg naa jokkante ak moom wax dëgg yàlla boole naa ko ñu bari ñu nekk bitim réew mais tey ñi nga xam ne dañoo nekk bitim réew nekk Sénégal bëgg a seetlu wala téléphone ba tey incha allahu rabi képp koo xam ne yaa ngi ci bitim réew bëgg ñu seetal la nga xam sa lépp xam sa tabian

kooku mënu ko xam mhm. ndax seet moom lu yéeme yéeme mbir mu yéeme yéeme la daal mooy buntu lépp seet mooy buntu lépp képp koo xam ne nag daa ne ci réew mi bëgg ñu la incha allahu rabbi boo foto sa loxo sa sa loxo càmmoñ bi da nga foto ah, ko loxo rek bu fekkee da ngaa ne daa nekk sori bu fekkee da ngaa boo ko yónnee lépp loo bëgg xam ci yow danañ ko xam loolu mooy li wér lépp luñ bëgg xam ci yow danañ ko xam mais wàllum sarax sarax dafa am dafa am na. sarax am na danger waaye sarax mooy lépp. laa am na danger mooy am na danger. xam ne moo tax mu di ah jaam bi génn ci. Mm. ndax jaam bi bépp mbir mu muy dugg. tàmbale ko bisimilah rahmaani rahiim bu ko tàmbalee allah rabbi te xam sarax am na laa léegi nag koo xam ne day jënd téeméeri nag wala ñu jënd loolu téeméeri xar naam naam téeméeri boole laa te loolu dara mm-hmm. waaye nga xam sa sarax nga def mbir mu dugg taxaw kon àdduna kenn ku ne sarax kenn ku ne sarax kenn ku ne rawaxaan ba nga yor rawaxaan ba nga yor ak sarax loolu dañ ko war a xam sëriñ si dañu war a jàng yi wax client yi nga xam ne ñoo ci ñoom dañ naan saraxel rek saraxel nangam saraxel téeméeri nangam téeméeri nangam téeméeri nangam déedéet noonu demeewul noonu sarax du noonu lu xam ne rawaxaanu doomu aadama ci lay méngool ak tabiam nga ci lay méngool nga xam ne ñi ku ne da am couleur boo xam ne moo sa couleur mm-hmm. am sarax yoo xam ne moo sarax sarax yooyu saa boo ko defee ak sa bis ñi ku ne am nga su ko defee lépp luy dugg incha allahu rabbi amul fépp foo dem te sa aajo faju macha allah am na solo li nga am ne moo di wàllum seet eh, yaakaar naa yàlla may na ci mais wàllum sarax itam da koy leeral jaamu aadama yi parce que yow doo lor da ngay ñëw pour dimbale jaamu yàlla yi macha allah mais ñu dugg ci li nga xam ne wàllum nopp bëri na ci réew mi ñoo xam ne mën nañu am nañ mën nañ nopp te mënuñu ko te yow dégg naa macha allah nopp yàlla may na la ci idaali nopp boo ko bëggee da nga ñëw saal bi fi nga toog ma ma defal la jërul nga ngay jàpp naan suba ba nga ko tëral naam sëñ bi ñoo ko jafeet mhm. nopp jafewut de hmm. man soo bëggee nopp ak ku mu mën a doon boo toogee sama saal bi mooy ñëw ma defal la ko yóbbaale fa lay man samay mbir amut suba amul ginnaaw suba fa ma ko defee fa lay jàppee gis résultat yi mhm. te du ma lekk alalu kenn ci nopp alalu kenn ci nopp te gisoo macha allah foofu laa yem ci doon daal résultat la waa résultat la jërëjëf ñu dem ci li nga xam ne tey du ma Sénégal ndaw ñëpp tey macha allah dañoo nekk ci ay jafe-jafe maanaam dañ ub bunt buñ ubb rek bunt buñ fëgg rek du tijjeeku dafa mel ni seen wërsëg dafa damm lan mooy problème mu ndaw ñi daa ñoo xam ne dañuy ah, dañuy am projet dem ba projet bi sës ba ne suba la ñuy am projet wala ñu dig leen benn un milliard wala un million mais duñ ci jot lan mooy tas yaakaar idéal tas yaakaar rab mooy tas yaakaar doomu aadama mm-hmm. ndax doomu aadama su fekkee sa yaram dafa takk mm-hmm. seetlu woo ko wala wala wala sa yaram takk maanaam jëloo benn saafara def ci mm-hmm. nga dugg ci mbir su boobaa fekkee ne raw xaan bi nga dafa mbir moom moo dugg da koy kare waaye su fekkee ne yow sa bopp maanaam ah, lépp looy dugg dafay taxaw wala lépp looy dugu moo muy am tak-tak wala ñu lay jox dara nga yaakaar yaakaar tas idaali képp koo xam ne ñëw na fii ba ma defal ko tax gii waaw waaw lii lan la nii Ida de lii ah. mosuma koo nangoo génne ci télé. waaw léegi mosuma mosuma su sama biir néeg bi. wóorul sama biir néeg bi Ida de mosoo koo gis. Hmm, Ida képp koo xam ne. liggéeyal naa la ko. Hmm. defal ko càngatu juróom-ñeenti fan ci kàttanu suñu borom incha allahu rabbi laa de amul kenn ku koy sangatoo càngatu juróom-ñeenti fan sa yaakaar tas. mooy ndax bi Ida de lii mosuma koo nangoo génne koo xam ne laa. li yombul sa yaakaar day tas. koo diglanteel mu war la. Ah, koo joxal ay kàddu sa kàddu kàddu yu juyuloo Idaara ñëw ma defaral bi juróom-ñeenti fan laa koy liggéey juróom-ñeenti fan amul kenn laa ko xam ne da nga ko sangatoo neuf jours amul kenn koo xam ne da nga ko cangatoo ba noppi sa yaakaar dootu tas neuf jours bëriwul mais loo diglanteel nit dana la jox boo diglante bi milliard ak nit sax bu la ko lu maa doon dana la ko jox parce que yaakaar nit benn laat ne projet mais nga la yaakaar tas Idaara lii dindi képp koo xam ne amate na ko na ñëw yéen ay xaatim ma déglu ko ay xaatim nga def jox ay xaatim la yu yéeme yéeme ak dina ci biir ah. musuma ko nangoo génne ak daal c'est la première ko nangoo génne kenn musu ci man pour mhm. juróom-ñeenti fan ci mhm. kàttanu suñu borom laa projet boo nekk loolu moo tax ndaw ñi da nga sax parce gis koo xam ne day projet bi pour mu jàll sa day jafe loolu lépp ak lu mu maa doon mbirum rabay doon mm-hmm. ak lu mu ci maa doon rek boo ñëwee fii su ko liggéeyee neuf jours ci kàttanu suñu borom incha allah da doon benn tak allah am na solo trop kon ndaw ñi dégg ngeen ko macha allah ku nekk mel ni euh, laat ku nekk dañuy taj tañu fen ba ba sonn mais yàlla day euh, macha allah day tax euh, lu bari bëri du am tey mu ngi noonu sëñ Bassirou ku nekk xam na ko muy jàmbaaru Serigne Touba macha allah numéro baa nag ba d'écran bi képp koo xam ne soxla nga ko rek parce que ñun nag dafa am luñ suñu maam bàyyee li nga xam ne moo di ñaan kon Euh, day na waar mais suñu basi ñëwaat ci beneen lekkat bi encore ba léegi parce que daf mel ni ñaari affaire la ñaari ak bay bokkul ba tey bokkul bii idaali mhm. ak bii waaw wuute nañ ah. def bokkul bokkul ñu liggéey waaw suñu basi nag tey idaali loolu nar képp koo xam ne maa ngi doon di gis jàmm yaa ngi yaakaar muy tas mhm. nee naa la bii mhm. boo jëlee bii ba noppi ba ba sa yaakaar ba idaali bii ngay bii moo tax nga bari wërsëg lool ah mooy xëcc bii mooy xëcc bii mooy ñot bi mooy dafon bi bii day dafon day jël quoi waaye dafon lay gëj de maam ñot gi lépp lu muy def wallaahi képp koo xam ne boole na ñaar yi am ko wala mu am bii mhm. insha allahu rabbi dara dootu taxawar ci wërsëg allah ku dootu dara képp ku bëri wërsëg lay doon mm. koo xam ne ku bare bayra idaali lii képp ku bëgg a bayra képp te bëggoo ala sax bayra bayra rek nga bëgg ko idaali ñëwal ma jox la lii allah bu la neexee wékk ko sa biir néeg rek wala nga def ko cangat yi ma koy def mhm. bis boo ko defee ci kattanu suñu borom incha allahu rabbi idaali da nga bëri wërsëg lool da nga bë da jaal sa bopp la wërsëg bi dikkalee macha allah am na solo kon mu ngi noonu mosuma gis ay tax xaw ma ay tax la xaw ay leket eh, daan naa ko xam nag parce que man ndongo daara waaye ni gëj naa ko gis ñu ñëw ci borom ñu ci naa fa ay ndombo waaw dafa mel mooy ndombo mhm. te nag ñetti façon ndombo lay indi hmm? ñetti façon ndombo lay bi ñetti gaw la ba 32 gaw xaw ma bii juróom ñaari gaw lay daal yu ànd hmm. juróom-ñaari boota man de borom juróom-ñaar laay tudde ñaari gawla yu ànd ak juróom-ñaari boota daal zoom ko bu baax daal naa ko zoom zoom juróom-ñaari gawla yu ànd ak juróom-ñaari bootal idaali laal zoom waat naa ci yàlla amul benn ndaw bu koy wala benn mindee bu koy takk boo xam ni da nga ko takk diir bu gàtt amu alal amul kenn kuy takk nomba gi idaali yow daal tey alal da nga bëgg a dimbale jaamu yàlla idaali tey li ma indi lépp ubbeeku la ubbeeku daal nga andi. tey indi ndaw ñu ne rek dañoo sonn moo tax damaa yërëm ñi xam ne jël ci bëgg dem ci gaal gi ci gaal yi. li nga def ci Espagne gi i daal gi i daal yi wut i daal yi. gi ay fan yu néew te doo amalaat. loolu man maa ko képp koo xam ne jox naa la ko nag nga takk nomba gi nga takk bu gàtt amoo alal boo ñëwee ma jox la ma joxoon ma tegal ñu toll noonu delloo la ko leer bii mooy nombe nombe nga xam ne mooy juróom-ñaari gawe juróom-ñaari bootal yi kenn ku takk taamu waral su fekkee ne nombe gi nga xam ne moom benn bootal rek la am mm-hmm. i daal lii moo të doomu aadama yi të mm-hmm. boo bëggee të doomu aadama të kenn du mën ci dara ah. mbedd mu la neex jaar mbooloo mu la neex dugg foo neex lekkee i daale takkal nombe gi allah akbar wat naa yàlla kenn du mën ci yow dara i daale mm-hmm. man ma assuré loolu man nombe gi ko takk fu la neex demal lool neex lekkal daal ke du mën ci a say noonu jaara sa biir noonu xuus wax neex tëx kenn du mën ci yow dara nga xam ne moo am ñetti bootali bootali moom la gaay yi wër damaa lankoon du ma ko liggéey dafa jafe ndax ndax day tax nit ñi yaafus mhm. ndax ah. lii dafa gaaw ci may alal képp koo xam ne da ngay forot moo xam yàmbaa ngay jaay moo xam ñuy jaay def forot yi mbuus yeeg yu mel noonu mhm. yor loo xam da ngay jàllale bëggoo kenn ku la arrêté incha allah boo koy takk di jàll. waat naa ci yàlla waat naa amul kenn ku koy takk laa koo xam ne. Mhm. dana da nga romb fenn ñu arrêté la. amul ak loo a yor nag idaal man kenn koo xam ne da ko takk ko de. idaal lii noonu la gi amul koy takk laa. di jaar fenn ñu lay arrêté idaal loolu maa ko wax. amul kenn laa ñetti bootal la ñetti gaaw. amul kenn ku koy takk di jaar fenn ñu lay arrêté. ah loolu doomu andi yi nag. mais sëñ bi doy na war ndombo yi euh, lekket yi doy na war en tout xam-xam pure tey dama gis tey vraiment dëgg dëgg tey euh, gàllaaj waaye tey gis nañ aussi tam ay bouteilles yu fi nekk bouteilles yi pour la yàlla dama la wax ne tey sama lépp ubbeeku ci wàllu wërsëg la tey ubbeeku tey jii dama ñu bëgg suñ wàllu wërsëg la kii la nii la man ah. waaye bii nag euh, xam nga am na kilifa yoo xam ni ñu takk nomba waaw am mënuñu takk nomba mënuñu takk liggéey leen biteel bii képp koo xam ni da ngay xëccoo nguur ngay xëccoo pouvoir wala ngay xëccoo lu ma wala nga bëgg yokkute wala sax nga lijjanti ay kayit yoo xam ne daf laa jafe mhm. mooy kayit waxuma kayitu ndaw yi ndaw yi de daal kayit ne da ko koo xam ne da ngaa jëm ci yoon da ngaa bëgg génn mhm. yoo xam ne daf laa jafe yàlla lii doo ko sangu mukk laa xam bi jeex te moom bu dee bi waxuma ay semaine de doo ko sangoo laa ba mu la doo sangoo ba bi teel bi jeex te sa liggéey liggéey la te amoo résultat amoo résultat déedéet mënta ne c'est impossible kon butéel bi am na for na butéel yëpp benn la wala la ah, yëpp la gis xam ne sunguf la aussi yi istrigo parce que fii lépp sunguf yi wàllum kaaraange lay dox kaaraange wàllum kaaraange nag da nga ñëw pour Sénégal yi da nga bu baax mhm. lu seer a seer la lii lii seer la sunguf la soo xam ni képp koo xam ne sangoo na sunguf si di nga bari kaaraange goo xam ne tey da nga të borom bët bu gudd borom lammiñ bu aay borom bët bu ay lépp da nga ko idaali kenn du mën ci yow dara sunguf si versi mhm. boo sango kenn du mën ci yow dara idaali macha allah sunguf encore bu fekkee mhm. sunguf bu xonq bii tey sëñ bi sungufu xay la idaali sunguf sungufu xay xay xay yeneen yi ma composé na ba mu mën a nekk sunguf soo xam ne day jëriñ waaye garabu xay moom mën naa koo baaxee ñëpp sunguf si idaali amul kenn ku koy sangoo te doo bari wërsëg saa boo xëyee saa boo xëyee sangoo ko idaali saa boo xëyee sangoo ko di nga mos saa boo xëyee idaali uh-huh. saa boo xëyee sangoo ko di nga mos ah saa boo xëyee laa saa boo xëyee waxuma la tey sango tey mos saa boo xëyee sangoo doo mos saa boo xëyee sangoo di nga ah, boo xëyee sangoo ko di nga loolu man maa ko sunguf sunguf si macha allah tey sëñ bi yéeme daal ci li nga andi tey yaakaar naa tey da nga dimbale da nga pour dimbale li nga xam ne moo di askan bi waaye dimbale ndaw ñi parce que ndaw ñi sonn nañ te da ñoo bëgg saa yu bi nga xam ne moo di wàllu encore tey andi nga lépp nga andi ne ndaw ñi sa rakk yi sa jarbaate ñu géej nga ñëw ne moo di li ñu jël un million cinq cent def ci géej gi ñu def ko seen bopp defar ci yaram parce yaram bu saful yaakaar naa sëñ bi dara ëllëg. Hmm. yaram bu safut foo dugg ñu làq la. Hmm. foo dem ñu refurle la. Hmm. fépp foo ànd ak say mborom yaa fay gën a yées. idéal naa ci yàlla bépp nit koo xam ne ñoo ci man. ba ko càngat yi may def. fépp fu mu dem dana saf sàpp. lépp lu mu lijjanti. mu taxaw. wallaah fépp fu dem moo fay nekk kilifa. idéal càngat yu yor naa samp. képp koo xam ni samp. képp koo xam ne sangat naa la ko mhm. foo dem yaa doon kilifa ga yaa jiite yaa lay tudd yaa bayre mhm. fépp foo ne lépp lu fel ji lijjanti mhm. yow rek yaa ñu gis ni ñu ngi jëm ci élection deux mille vingt quatre euh, ku nek bëgg a samp euh, li nga xam ne mooy wàllum euh, présidentiel ku nek bëgg a ñëw est ce que tey di nga liggéey ak mën nga liggéey ci li nga xam ne moo di samp nit ba mu nekk président wala mu nekk ministre iyaale loolu moom dama ne woon ma wax ndax ku ne ngi daw di ñëw ku ne mi ngi gis boo gis kër gi rek da nga da nga mhm. xam ni day xam loolu façon kilifa gu ne mhm, mi ngi ñëw fii daw di ñëw mhm. ngir làqatu sama ginnaaw waaye foofu dama joxoo boobu dama élection yi dama gëmul élection ah? man yaakaaru moo am tànk yi ma du ma du ma du ma ci du ma ci bëgg wax gum ndax man suñu borom damay wan la ñëwagul dama koy xam wallaahi moo tax bëgguma cee xuus ku nekk nga ñëw ci man nag ngir bëgg ma fal ko nga na teg damay teg kamay fal xam naa ko kay falu xam naa ko wallaahi akbar incha allah mm-hmm. wax kan lañu fal mm-hmm. te mooy fal mm-hmm. ñu gis ne macha allah am na solo trop ci li nga wax ne en fait wàllu làmb aussi itam euh, da ngay liggéey ak euh, mbër yu bëree bëri dañ jóge pour nga ñaanal leen ñu gis ne combat jaar yëpp macha allah euh, gis nga ni mu demee am na sëriñ yu wax ñu baar leen ñu bëree bëri tey di combat boo xam ne mu ngi jëm Dimanche ak ki nga xam ne moo euh, de Guiers ak euh, Siteu lan ngay ci combat yi. idéal yi ak football amul benn sëriñ bu ma ci mën. wallaahi maa wax loolu tey. coupe moom dégg naa moom. amul benn boo xam ne mën ci làmb wala mën football. coupe moom dégg naa match moom football jël nga Ama Baldé. Mhm. Modou Lo na ba Diourbel. Mhm. ma ne ko Modou Lo gis nga gone gii. Mhm. da nga koo xeeb soo ko mu def caaxaan rek dëgg mu dem. toogaat ñaari fa ñëwaat man ko mudloo mu ñëw na ma sëñ bi la nga waxoon lan moo ma jox koy sarax jox koy tital mu def ko la ma ko waxoon nan lay demee la demee allahu akbar ama seen tafaatin tafaatin jurbel la dëkk waaw bawal bawal la reefal la bi mu ñëwee jurbel dama ko da nga daan allahu akbar wax na ko noonu dana métti yow lool waaye da nga daan na sëñ bi combat Lac de Guiers bi ak Siteu bi mhm. insha allahu rabbi ci si suñu borom dafa jàpp ni Lac de bi bii daf koo xeeb waaw Siteu dafa xeeb Lac de Guiers mhm. incha allahu rabbi iyari Siteu su wattuwul laa wax tay mbokkam moo ma léegi nu gën a gaawee ci kàttanu suñu borom incha allahu rabbi Siteu dana daaw maa wax loolu ah? ay mbokkam buñ gaawul woote ñëw léegi ñëw léegi sama saal bi ma jox leen sarax bi ñu war a def balaa combat bi ah. Siteu mooy daanu allah akbar kon maa wax loolu la neex Siteu bu ñëw riigu sama saal bii incha allahu rabbi dana daaw maa wax loolu i daal waxantu de bu ñëw riigu sama saal bii ma def ba jox saraxe ma koy jox daa daanu macha allah kenn mu ko te daanu combat moom xam na mën nga ci am yàlla may na la ci am na mbër yu bëri jóge fii di dem Jurbel euh, macha allah di wax ne euh, macha allah wàllum làmb moom yàlla may na la ci mais wàllum football moom leer na ma nañ parce que ku bu nekk jël go ko Jurbel yaakaar naa euh, sëñ bi ñu jëlawaat ci li nga xam ne rek moo di actualité diggante Wally Ballago Seck demoon fële ca Paris ak Sidi Diop ñu mais coow li bari biddiw Sidi Diop biddiw Wally Seck lan waale bi di bi mu yor képp koo yor fii ba laa yombi diin fii ba àdd yu tukki yaay féete kaw biddiw waali waala biddiw bi mu yor laa wax biddiw bi mu yor Sidy Diop yor biddiw bu ko jege sax allah akbar mun ñu mun gisuma man benn artiste laa bu nekk ci réew mi mhm. boo xam ne bokk nga waale waale seet mais waxoo lu ma neex ngir li ma li ma du ma wax kenn lu ma neex ah, du ma ma toog ci sa du ma toog ci benn fenn mhm. di wax kenn lu ko neex waaw mhm. man sama diggante suñ borom laa wax Mhm. Waly Seck kenn la bokkal benn vidéo ci artiste képp ki waykat mhm. mu Youssou Ndour wallah te Waly Seck fenn la fa fenn la ëpp Youssou Ndour mhm. muy dafa ko a ñeme ah. Waly Seck amul kenn ku ko mënal dara Waly Seck bu takkut naanu sax nit mënul ko dara allah akbar maa la loolu bu takkut naanut ko dara mais ñi wax moom lu bon toujours te muy ku baax Waly mosoo gis ñetti wax ci moom dara ba wàññi ko dara wax wax wax mosoo dégg ñu ne Waly ñi dugg jàpp na ko ñit nangam sa am musta am te du sa am wala daa pare suñu borom moo jàpp tànk yi nag bu jàppee tànk yi àdduna sépp buñ dajaloo woon ngir ngir yàq la mu la war naa ci yàlla waar bi dibu yàlla xam kenn laa gis mu yor ko mu Youssou Ndour Youssou Ndour te te waat lu moroom allahu laa ci yëpp ci diggante xanaa kon mooy li mu wax euh, mbër mu sa yàlla samp doo daanu kon xanaa boo ne yàlla moo tax suñu borom moo ko samp te kenn mënu defee am daanu xanaa mu bëgg a dem ba bàyyi bàyyi ay rakam mais feeg mu ngi ci yoon mi ngi ci ci liggéey bi. Mhm. kenn mënut a mënut a romb waale amut sax. allah ñoom xalaatuñ ko sax xalaatuñ ko sax. mais lan moo tax sëriñ yéen day ndeysaan day ma gis yéen di ñaanal waale te xamu leen gisu leen dañ koy ñaanal te képp képp kuy nit ku baax. allah képp kuy doxal diine da ko war a ñaanal. Hmm. ndax waale social li muy def. dëgg la nit ñi muy dimbali. ndeysaan ak yërmaande yàlla def ci moom. Mhm. képp koo xam. wala képp ku koy dégg da ko war a ñaanal. ndax ñit ki bul ni defal defal na ma waaw bàyyi bu defalee nit ki te ñëpp ay mbokk lañ su defalee su defalee idaali mi mel na defal na la léegi kooku da nga ko a ñaan suñ borom yokk ko mhm. defal ko kattan defal ko gudd fan mhm. muy gën di bën la muy def saa su ne mhm. ba muy muy gën di law te waale moom ku ne gis nga ko jàmbaar la incha allahu rabbi dana gën a yokk dana gën lépp lu mënoon dana ko dana gën a ñu gis ne en fait euh, aussi euh, dañuy dugg tuuti rek ci li nga xam ne moo di moom la liggéey mooy disque d'or bi ñaan nga ko ci euh, ñu ngi jaayil ba léegi seede yi lan nga gis ci Diofior ba koy andi voilà dis door bi incha allah ci wax. Mhm. waaye man gis naa dis ñëw dis door bi. voilà dina ñëw fii Sénégal incha allah rabi dis door bi dis door bi. Mhm. dina ñëw Sénégal. waaye nag loolu dana am ay dana danañ ci waxaat. parce bala ngaa wax da ngay bu baax. waaw dinañ ci waxaat doo wax waaye incha allah rabi kenn mënu ko tee ñëw Sénégal. jeex na fi ñuy jeexale euh. ki nga xam ne en fait euh, dafa am jafe-jafe soxna yor na xaalis mais fépp mu rek macha allah pour mu am soxna day jafe ba gis koo xam ne dafay am kër am alal yor oto yor lépp mais pour am soxna lu mu yóotul soxna rek wàllum soxna rek yàlla da koy day def du antu lan mooy andi ko xam ni dangaa soxna mu jafe la am nga alal amoo alal ak loo mën a mel loo ñaaw ñaaw mhm. loo rafle rafle boo ñëwee ci man ci carte suñu borom trois mois nga am soxna mhm. trois mois ca nga demee la jox sax balaa morso bi nga koy takkee balaa tilim nga am rab dong koy def rab moo soxla doomu aadama daa rab ba nga far rab mm. loolu moo soxla loolu képp koo xam ne ñëw na ci man ba ma defal ko trois mois nga am soxla trois mois nga am bu jigéen muy góor mu góor bépp jigéen boo xam ne dangaa mel da da da maanaam dangaa toog lu yàgg mënoo borom kër ñëwal ci man ki nga xam ne dafa toog yàgg te mënu doom ku taxawle ku taxawle nga ñëw loolu moom xam nga maam résultat yi bari moo tax ah, résultat yi dafa bari li ma bari xam-xam bi ma ci yor waat naa ci yàlla wax ba ilaa yawmil ba ilaa yawmil abat mhm. képp ku ma ma faj la mhm. képp ku mhm. ma faj la ñaan suñu ma faj la macha allah sëñ bi fi ñuy jeexale tuuti rek mooy euh, mbirum Ousmane Sonko gis nañu boobu ba léegi muy ci kaso bi euh, barki démb lañ ko doon a jëm ko jox verdict moo yor dëgg wala amul dëgg mais gis nañu dañu ajaat projet bi a ngay wax ci mbirum mbiru Ousmane Sonko de su ma bi dama ciy maam hmm? su ma doon état xam ne moo nekk si bopp ba mel ne koo xam ne néegu ca ndax bu lay wane mooy moom yoonam néew ca te lépp moom la mhm. waat naa ci yàlla mag Sall gis nga su wattuwul mbirum Ousmane Sonko su wattuwul mbirum Ousmane Sonko dana jël defet boo xam ne moo ko njabootam boo mhm. xam ne kenn du xam fa mu jëm gis naa ci loo xam ne buñ su ma doon ñoom laa wax mhm. wala ma am ku leen dee dana leen nañ bàyyi ñu bàyyi lépp Ousmane Sonko Ousmane Sonko suñu borom suñ borom daf koo dimbali dimbali koo xam ne ay mbiram balaa gën a ma la ji demaat fee Ousmane Sonko danañ am déception bu mag ci moom te mënuñ ci moom dara. pexe yi waaj yëpp mënuñ mënut a jàll du jàll. du jàll su ma toog Macky ak ak képp ku bokk ci Macky Sall wala képp ku jege Macky Sall wala bépp sëriñ boo xam yaa ngi ñaan Macky Sall te boo ko xam mu dégg la. Mhm. ne ko na bàyyi. ne ko mu bàyyi ne ko na bàyyi su bàyyiwul du baax ci moom de idéal Macky Sall su bàyyiwul du baax ci moom moom la ci ginnaaw ñu gis ñu gis euh, xaatim bi xaatim bi nga teg nii bi a ciy bind ay affaire yu bare bare lii maanaam euh, lan la jëriñ ilaa limay musallas mu musallas musallas xaatimu suleymaan xaatimu suleymaan yëpp dañ ko boole allahu akbar gis nga idaal yi bii xaatim képp koo xam ne xa tëddal naa la ko ba tracé la ko waat naa ci yàlla lépp looy wut sa àdduna dana sotti xaatim bi ma la ko rëddalee nii lii naqar ba dugal ba dugal mbir yi allahu rabbi képp koo xam ne liggéeyal naa la ko laax de insha allahu rabbi amul looy amul fooy dugal idaal yi taxaw ngay kat muy taxaw société boo mën a yor wala place boo mën a yor di nga am yeneen place yoo xam ni place yu gaaw lay doon te di nga am alal ju baree bare ubbeeku gaaw ngay am idaali bi ñu gis ni bind mi yóbbu li ñaata fan ko bind idaali li jafe na jafe na jafewul waaye xam-xam la rek xam-xam ak jot rek temps rek lay lay lay lay laaj mhm. ñun moom li ñuy nekk jaral ndax xam-xam xam day nekk loo xam ne lu yéeme la idaali lii du ma ko bindal coomo du ko bindal gone mhm. ah lii moom lii mbindum gone wax dëgg yàlla du ko bindal gone lii daal ni ma ko bindal gone mhm. képp koo xam ne nag bindal naa la ko moom sa xol na seet mën ngaa toog sab saal mhm. dal incha mhm. allah rabbi macha allah noonu demee sëñ bi na euh, naa ku nekk xam na ne émission bi tey dafa ala daw parce que tey gën nga xam-xam euh, macha allah aussi tam li ma gën a neex ci yow tey da andi pour dimbale macha allah jaamu yàlla ay war a rawat na ndaw ñi rawat na tey ñi nekk Europe nga xamante ne ñoo nekk ay jafe-jafe moo du ñëw Sénégal am ay jafe-jafe am ñu leen seetal tey gis nañ ne wane nga fi vrai vrai dëgg dëgg seet sëñ bi tey lan ngay tàggoo wala lan nga yaakaar ne laajuma la ko nga war ko jàlle askan bi waaw alhamdulilah lépp man mhm. ñun moom suñ suñ suñu suñu suñu loolu mooy ñoo ngir dimbale jaam mhm. ndax xam-xam boo ko amee mhm. dafa bokk ci xam-xam sax nga sàkk xam-xam ngir dimbale jaam te man dama sàkk xam-xam ngir dimbale jaam képp koo xam ne nag bëgg na aajo fajo ak ku ma doon a ka joo mën a am a aajo joo waaye mën a i daal man maay sël sëriñ bi nga xam ne maay taxaw Sénégal nii lépp lu am aaju waay am bu ñoo faj aaju waay am bu ko diisee ma mm-hmm. faj allah am na solo dégg ngeen mu ngi noonu macha allah Serigne Bassirou borom jaaro bi yaakaar naa ku nekk xam na ko euh, Serigne Bassirou jaaro bi idaale jaaro duñ ko doon fàtte idaale waaw musiba la waaw man maay li may njëkk wax mooy mm-hmm. benn sëriñ moo am Sénégal mm-hmm. boo xam ne mooy wéddu jaaro wéddu jaaro wéddu jaar laa ba mu ñëw ci loxoom benn sëriñ allah keneen koo xam ne mën na ko wala mu wala wala mu gis ko ma ko benn sëriñ nga gis laa ci Sénégal boo xam ne moo toog widdub jaaro boobu ñëw ci loxoom kenn muy man ñaar jaaro bi képp ku ko am dama bi képp ku am da nga bari bayra jaaro bi képp ku ko am di nga mucc di nga am kaaraange jaaro bi rek doy na ci saafara jaaro bi rek doy na ci yi képp ku am jaaro bi jëru ngay dem fenn jëru ngay dem ci ñaan ci kenn incha allah bi képp tax jaaro bi sa mboolem fajo faju ñi dinañ ñëw di nga am alal di nga ubbeeku di bayra bi dana bari lool te ànd nga am kaaraange macha allah incha allahu rabbi sëriñ Basiru borom jaaro bi ko xam naa rek fi la ñuy euh, euh, ndar képp suñu waxtaan rek euh, ko mooy xam nga nekk Sénégal sa aajo dina la seetalee rek incha allah wax ay sa yaram dina ko def incha allah sa yaram neex saf suukar macha allah sëriñ bi lan ngay alhamdulilah mu daal sant yàlla baax baax moom mi ñu may fekkee tal ba ñu mën saa su ne ñu mën di jëflante doomu aadama ñu fas yéene ñoo ngi koy ñaan rek mhm. saa su ne mu ñu mhm. ba képp kuñ ñaanal wala képp kuñ jëflante ci mbirum ñaan yàlla incha allah sa aju faju ndax mhm. loolu rek la ñuy ñaan ndax euh, képp kuñ mooy bëgg nañ képp kuñ jëflante la la la nga la taxoon nga ñëw ci ñun incha allah nga gis ko loolu lay ñaan suñu loolu lay ñaan saa su ne jërëjëf jàmm te réew mi rek a fi xaj di ñaan suñu borom euh, def ci réew mi jàmm jërë ngeen jëf jërëjëf merci beaucoup jërë ngeen di bokk li amoon tey ak sëñ Bassirou borom jaaro bi ku nekk xam na ko ci Click Dakar 221 tey o mu ngi noonu numéro baa ngi daw ci bas d'écran bi fépp nekk ci monde rek soo ko euh, appel normal au niveau Sénégal euh, di jot macha allah aussi sous région bi kon jërë ngeen di mbokk yi ba beneen numéro jërë ngeen jëf